asalaamaaleykum bienvenue dans votre émission les plats de Jojo ma ñëwateeg yéen indil leen benn recette bu bees tey nag boisson laa leen indil les fruités à la mangue si toujours ak suñu meew danon pour réaliser suñu recette nag li ñuy soxla mooy mangue nañ soxla aussi crème fraîche nañ soxla aussi meew danon bi nga xam ne mën na gunge suma biir waañ te di ma yokki feem léegi ñu jublu suñu recette jël suñu mixeur def suñu meew dano ci suñu crème voilà léegi su la neexee nga def tuuti ndox wala bu fekkee ne nag da ngeen à la place des glaces ngeen def seeni glace et on rajoute les mangues voilà ñu léegi ñu tëj suñu mixeur commencé mixer voilà gis ngeen suñu boisson pare na gis ngeen couleur bu nu mu rafetee dama ci def sama crème fraîche ak sama meew danon man nag sama waay meew danoo laa ci tàmm ndax meew danoo moom mooy yokki feem c'est riche en calcium en vitamine A et D et c'est à la portée de tout le monde léegi nag ñi daal di servir dalal suñu gan voilà mbokk yi laa leen indiloon tey seen émission les plats de li les fruités à ànd seeg sama meew dano gis ngeen ak dano gan betatul kenn loo am togg teral sa gan mu ngi noonu léegi ma dalal sama invité mu dégusteel ma Khadija hello Dija nuyu naa la. ça va et toi alhamdulilah. waa ah, gis nga yow laay jàppale ah merci c'est hmm, gentil. waa ah, gis nga tey de fii laa génn. xam lañu jublu ci période mangue. Mhm. te mangue dafa neex te dafa riche. Mhm. voilà tey nag ma génn ko ak euh, sama meew dano. Mhm. sànni si tout sama tuuti crème fraîche. mi ngi noonu. voilà je te laisse <laughs> joli doux na de. c' est doux. c' est très bon ah merci beaucoup. voilà kii laa si def crème fraîche. sànni sama meew danoo. voilà man ma meew danoo ma may gunge sama waañ. di ma voilà sama recette yëpp am laa koy réalisé. Ah, na trop en tout cas c'est doux voilà ça sent en plus. Mhm. ah merci kontaan na. maa a kontaan yow mi ngi noonu voilà léegi laa leen indiloon tey ci seen émission les plats de Jojo les fruités à la mangue ànd c'est toujours sama mère Danon bu ñu fàtte itam suñu thé flécha neex na sell na te woyof na et c'est 100 pour cent naturel man di jox rendez-vous ci yeneen i numéro ak yeneen recette yu bees incha allah bon appétit.